saq poobar a ngi nii lu mu bëgg rek man loolu lay def. ah man moom tey damay génn moom xaw ma. saq poobar a ngi nii mooy décidé kii moo yor sama direction. kii mooy chef instant mooy dawal. yow loo wax loolu la. noo eh, man xam nga ni yàpp rek laa bëgg man. man côtelette añuloo bu nooy ñu lakk ko quatorze carats. Ah. defal ma soblet kaani yooyu noonu mu taat. cam man loolu laay lekk loo bëgg rek la. wallaay nag xanaa xanaa xanaa nga. dee naa ma loxo. <laughs> mais nag koy yëngal sa waaw gis nga de bëgg ñu kontaan rek. bravo. le sang n'est pas là, les daal joojo nekku fi tey ku nekk toog ay waaye ndaw <laughs> yow nag boo yow lii yëpp yaa ko manigance xaw ma kañ nga ñëw ci kër gi. tëdd ci futay ak say tànk Ngoné Ndiaye waaw yow ki yeew maanaam yow daal toujours comme ça yow loo fekkee yow jàmm joo fekkee rek soppi ko ay yow posal ma ñëw ñëwal kee xonq nopp bi eh, booy eh, na nga modéré mm. doo eh. wax ku am kudd du lakk doo sax wax maa la fi nekkal ki amoo yow looy wax ak moom man mi maay lijjanti kii kii tekkiwul dara. kan yow. Eh. nii nga fi defoon ñëw fekk sa yaay teg ay délits yu kenn xamul lu kenn xamul may ko riir may ko mbamba def fi wata ma njombe dem sa yoon. Eh. yow sa walisu kese boobu nga fi indi naan ay. man soo ma xoolee xam ne je suis une grande dame man walisu kese duma ma topp yow mi yaa ndóol yow mi yaa tekkul dara. yow foo fekk jàmm rek soppi ko dëj lan la yow lan mooy problème bi. bàyyil xel di fii sama. ma ne lan mooy problème bi man na pare naa bu ma sax jege. dama ne jege ma lay yàq lu leer laa la wax. Eh, bàyyil xel fii sama kër yaay la. xoola man yow kon xoola boolewu ma la sax ci doomu aadama yi lijjantiwu ma la yàqatu dil nga yàqatu làng nga jàmm joo fekkee soppi ko ay man oo ma ci yow soxla. lijjantiwu ma la parce que kat nga moo tax. amoore jógal ñu. Mm-hmm. Eh, sa man j'aime pas ça ok. mu rippi toogal noppil wuy ma yaay booy wuy ma bul ñax eh. booy. man eh. dama fekk sama gàllee xam nga di ma jëm a imposé benn ñekke yow ñëw nga fi paa bi tëbal na la. booy da nga war a gëm yàlla nangul ndogal fii maa impulsé man maa war a émerger <laughs> yow dañ ne la nga bougé paa bi loolu la wax nga bougé ak li fi def maire bi yow instant yaay coow instant man maay bëgg sama yaay bëgg na ma sama jëkkër yaay bëgg na ma. jox nañ ma néeg yow demal ci mbedd bi nga fanaan foofu booy xanaa da ngay booy Poulsé laa la wax dama bëgg nga jóg sax léegi xam nga pour muy dee kër gi ma lañ fi bàyyi man maay chefu kër gi eh. dama bëgg nga jóg nga génn gàlle bi booy man du ma sam morom booy wax ay génnal gàlle lan mooy morom affaire de grand frère grand frère bokkul néeg la boo xëyee da ngay jël sa mbalaan lem ma jël sa mbalaan lem ku nekk dem sa yoon dama bëgg nga jóg nga génn gàlle bi maa ngi yow ba foofu booy booy dama ne la doo su may ni laa lay wax ni du ma sumay. waaye man affaire bi doo si un million de dollars yow doo dara. eh wéetal xaar bi yow booy sama rajo da ngaa sel waaye yow doo sumay nii. wéetal xaar doo grand frère. wéetal xaar waaye yow avance yox la. daan dem suñu yoon waaye. kii nitu fitna la fu mu dem indi fa guerre. wéetal xaar doo dara. baaxul société bi quoi. daa doon kii man maa ko xam man. kanamam bi mel ni kanam moo mën. waroon naa la fekk. waroon naa la bi toog fii ay Ngoone Njaay géwél indi fi seen walisu kase boobu delloo ko di sóob ak beneen meer boobu noonu may wax nga indi fi sa xonq nopp bii di am looy expliqué man booy bàcc man jaaxal na booy bi nan def bu dugg ci gàll bi te kenn dàqu ko na sant yàlla bu baax alhamdulilah wax ji bari ji matu ko wax moom lu ko guddal lu ko gàttal la ko gën man la tata tantay Astou Mbaye tata accessoire yëpp problème mu Astou ak Pape Cheikh jóge États-Unis na cëpp jël sama avion ñëw pour leenti ko ba mu ni koroj ni kocc Pape Cheikh laay bëgg laaj ci anamu soo gisee Pape Cheikh nga wax ma ko wala takk ndeeram fu mu ne te gis nga yow ku incorrect nga mm-hmm. ñëw ci kër fekk ay nit toog xamoon nu ñu toogee nga ñëw di wax. yow lan la da ngay yaru. <laughs> soxna su nga baal ma incorrect yéen la fekk baax yéen ñi sa doom jël xale bu ndaw takk ko ci fàtte yàlla su sunna su mu Muhammad àdduna bépp di ko wax mu ne ko fa ñu gën yàq ba naqari daw kon incorrect boo koy wax si yow la jugo yow mi ko jàngal sa doom xam laa lay xamal asu da ngeen koo ndeysaan da ngeen koo xamul avant ngeen di dugg ci moom asu noobul la asu namul dara. gis nga asu siiw ak leneen la yemale man may tantam tata accessoire nga xam ne ku ma déggul xam nga ma wala nga gis ma wala nga teg sama jëfin ci sa bët yaa ngi may dégg asu léppam États-Unis lay jóge dollar lay jël GP indi ko kon asu lu mu namm asu namul daray Sénégal nag maa la wax li bés ni ki tey Pape nag amul jom ndax ñàkk jom mënta weesu takk xale bu ndaw mel na war a mel riche lool ci jikko riche lool ci juddu ñu yar ko fañ ko war a yaree mu ne ko fu ñu gën ma ndax ni mes ni mente ma Pape fu mu li muy fëri fëri lan la lan la bëgg a xam Pape baaxul guddi baaxul bëccëg baaxul suba baaxul ngoon Pape nit ko bon la maa ko wax. waaye bàjjen doo wax ak kii yow mu yor wax ji di ratatati rek xamu fu mu jógee yow lan la. da ngaa bëgg xam fan laa jógee. waaw waaw ma la tata accessoire. boo dee tata accessoire fekk fi colle bëri bagage. yori jaajat yori ay xam gën la katakan ni gën la yéeg yaa ngi dégg bu baax li ma la trop nag c'est trop boobu ba tey yaa ngi yëg ñun ñuy waat yow da ngaa dof wala wala kii dafa mel ni basang rek noppi di batt battal moo da nga nekk fi di yéeg moom GP la jaay ñun ay conteneur te yéen ñu leen siwoo yéen ay la ngeen ñoo ko def 100 giga siiw mel na internet bi ba nga yow fi ne États-Unis nga jógee yaay ah ñun ñoo tax astu mi ngay wax nan xool na suñu deretu noble xam na fi dem na fi daal commande ndax Pape te loolu maa ko lijjanti man mi ngay wax dama ne la xam na fi dem na fi daal commande ak Pape Cheikh dox na fi <laughs> yore na fi ay jaajam di wër ci mbedd mi yaa ngi dégg bu baax li ma la wax dangay mun a régler nag ñu déglee man kolle la ba doo demati États-Unis yow say këyit lañu yow da ma xamul da nga laaj ki ngay waxal xam nga tamit ki ngay waxante man la man la la kolle bari yow dama bëgg nga wàcc ma nga ne kolle mel ni ku kata kay ni yaa ngi dégg bu baax li xamul xamul da nga koy lan la seen kër gi fi la man tey bu ndaw takk man daal man daal lan la duma la yóbbu police du la dina la tampatamee ci kër gi ba booy génn léegi saa su soir fi nga ko yow yow kenn xamul looy nurool yow yow yow yow yow bàjjen yow yow yaay Pape Cheikh yow laay waxal gis nga yow xam naa lay xamal Pape Cheikh wari ko ah. Collé Collé bu ma indil benn problème bu ma indil problème de sa loolu bu mu fi agsi yow yow yow laay waxal de yow wi ma uh, kii. problème uh, uh, talum ma ko bu ma indil problème. yow yaay Pape maa ngi dem dinaa ñëwaat nag te gis nga sama ñëwaat bi yoon beneen yoon beneen beneen affaire lay doon. ci loolu. lan la qu'est-ce qui se si y a quelque non sa kanam gi ne mel nii en fait man sa ne me plaît pas du tout tu pas comme ça ok waxuma loo sax mais kële kan la tu as des la maison. dugg ci ay détails s'il te plaît. mais non je am naa droit de demander. laisse tomber kañ dem la ñu waxtaan. ah salaamaaleykum yaa booy ça yow loo fi wut. aywa doo ma nuyu ba pare nga naan lu ma fi wut lu ma fi dul wut. lu wànq di ah, ko bëgg fu mu seetlu xanaa démb ñëw naa fii. waaw boo dee ñëw doo woote téléphone maa nga def merci dama rappeler. yaay gis nga ni ma fi génnee woon du gis nga ko. conscience tranquille laa fi génne woon bay tal ay merci dama rappeler woote. ñëw naa fi démb fekkuma la fi nga jël sa tànk bi yaay def ko ni barngalu maabo. loolu eh, li may waxatee ngi nii. baal ma kon xam nga yaa may dépensé. baax na del moderniser les sa eh, langage. yaay li ma fekk démb daal neexuma. mooy la bàcc ñëw jël sa kër gi def ko comme cinq étoiles. commencé sa nettali. ànd ak naar boobu noonu. Ngone Njaay géwél toog fii. may wax ak moom mu osé sax ne ma génnal kër gi. donc yaay doo toog. yow doo ma ba su ma toogee fële di maa ngi nii dama ba ba may wax loolu damaa lijjanti ji woon yëf yëf damaa am lu ma lijjanti woon sax jarul ma ciy de ma ma ma la ciy développé dégg nga nan laay toogee su ma toogee kan ana lekk gi ci kër gi kuy joxe añ kuy joxe reer kuy joxe ndekki ah su ma woyaanul nan laay euh, euh, euh, kiwee nan la ci di tàkke waaye léegi ba tax na da ngay bàyyi sa kër gi nii. fi laa leen bàyyi fi a bàyyi ba mu may ma xaalis ma bàyyi fi eh, eh, eh, nu mu tuddati tubaab ba. tubaab ba. xaritu bàcc bi. kooku xaritu bàcc la moog bàccee liggéeyandoo moog bàccee liggéeyandoo. yaay yaay yaa ngi ci kàmb gi de. moo kàmb gan. xam nga man li ma indi ndekete du du du hasard. fi ma toog kàmb la nga naan ma yaa ngi ci kàmb gi. bi liñ la jox am ngooñ la. xoolal man du ma xam nga sa rewane gi may wax a ngi nii man duma ma sa morom ba ngay wax waxi ngooñ man may sa morom man nuru naa la kuy kuy kuy kuy yore ngooñ mel ni ku yore xam. ngooñ la yaay gars yi dañ lay dóor te yëgoon ne ñu ngi lay dóor. kan kenn mësumaa dóor. ku ma dóor ku ma mës a dóor rek fayu naa yow xam nga ne man sa yaay ji rek ku ma mës a dóor rek faju naa. déggoo ma de. mooy la. bàcc gis nga ndawaayam bi ak jubati doom moo tax mu tuuti. boppam bi yëpp ay pexe la. waaw ba tey ngoone. ba tey Ngoné Ndiaye géwél day dóor. xam nga lu ma kooku ngay wax nag naan ab. su ma dóoree ma fayu. Eh, eh, yow yaa ngi ca ngooñ mang ba léegi nga naa maan su ma fayu kooku ngay wax naan ab tubaab la du tubaab naar la xartaani bu bon la. yow yow gis nga xam nga li may wax sa réewane gaa ngi nii kii nga xamante ne moo Ngoné Ndiaye ñoo nekkoon fii moo mi ngi woon Allemagne. yaay gars yi ndengeñ lañ la de. luy nange bari. nañ ma rey sa yoon newu xam nga yow lan lan moo la jàpp fu mu nekk nii. iñaan soxor ak mën a nettali te xam nga lu ma bëgg dimbali ma ngir yàlla maabo baal nettali góor du nettali góor du bëgg détail xanaa xamoo góor bu bëggee détail ñàkk na fayda. waaw léegi xas bu dee nettali ñàkk na fayda. yow xas ma déedéet góor da nettali nit du nettali waxuma laa góor góor du nettali te góor du du du du bëgg ay yaama waxoon ak maa la waxoon ci ñàkk fayda la bokk ba léegi yow doo doo xamoo fooy taxaw. xam nga loolu kàmb gi may bañ nga daanu. yàgg nga maa xañ sama teraanga bii bokk ci. ki ci saal bi góor la walla jigéen bëgg naa xam loolu. de deux Fifi depuis mariage bu Pape Cheikh laa la gëj a gis je t'appelle tu réponds pas je t'envoie des textos pas de réponse ñëw naa ci kër gi jël sama caabi ubbi nga changé vachette bi je sais pas parce que je n'arrive pas à ouvrir la porte Fifi qu'est-ce qui se nga wax ma ki ci saal bi kan la. mais mënuma ko bàyyi parce que sama kër laa eh sama kër laa nekk ah ki nekk ci salle bi laa bëgg xam góor la wala jigéen la ma dem léegi lu jënti ko mais wax ma lan la. mais bu baax. quand mais c'est minimum quand même oui minimum. moo tax lan moo tax je vois. eh li kañ la. jaxul kam kañ la nii rek ngeen di def ku leen jox seen xol bi rek ngeen tampi tampi ko foowee ko ba lii dal ko bàyyi leen ni ngeen men amee ah, nag écoute li ci astu mbay du ci yow ah non du ci yow dara wóoruma ci lii dal astu mbay tey mun na ma dal suba non mais mënu la dal man je suis responsable du ma Pape Cheikh Pape Cheikh du man man la Assane loo xam nga loolu man laa san loo c'est ça le problème. man de toute façon sama xarit laa tam. ok. parce que laay souffre sama xel bi yëpp ci moom la nekk. su ma la soxlaa rek naa la. ok donc madame yow soo ma soxlaa woo ma man su ma soxlaa du la jot. bul amul benn non non c'est bon amul benn problème say bañi démb bu nu nangoo tey seeni pexe jubut ngóona bu la doon teral démb la lay teral ba mu la fekkee fii ci lal bi tubaab bi dóorkat la du tubaab naar la bàcc mii li tax mu bu juboo xaw ma sa jëkkër la xawma ma sa sa sa sa espèce su jëkkër bii pap bool dama lay mbej de du tee ma wax la ko de am na luy ñuul ci soomi yaay dara ñuulu ci lu dul weex tàll kii xanaa xamoon ne sama sama yoonu ah, kii état États-Unis léegi xam nga xaj na ci sa yoon xaj na ci ma dem leen yoonu yoonu yoonu bàcc xaj na ci yaay dem leen. ma deew ma deew ma. ba tey na ma rey ci yoon bi kii daal sama américain bii. malaka doo ma dem mënoo maa yàq sama sama teraanga la. sa mën na maa jëndal kër sa sama sama nool gi ma nekke jaay naa gerte jaay limon jaay caaf jaay sidéem jaay kew jaay xaal jaay kóoni lu ne laa jaay ba tey yàlla dimbali ma nii tey indil ma lu xonq cuur sama kër gi doo ma ko xañ may ma sama jàmm xañ xonq luy ñaxtu la de waaw may ma rek man dama bëgg a noppalu ku jógal jógal danga may dàq jógal dem la dàq xañ sama xel bi nga nar a yàq du ma ko nangu tubaab bii moom teg naa ko loxo ñàpp néeg bu may nekk ma néeg ah du ma demal nga dellu fa nga nekkoon fii mënoo xajoo fi ki fi nekk dong doy na ëpp na sax ëpp na ëpp na yéen daal nii ngeen ko nar a jàppoo bu kii ñëwee tey kii ñëw suba kii ñëw ginnaaw suba yéen ñëpp ngeen ñëw tuuru sama kaw des na de ci lan a ah, daam taaya déggante nañ de mu lay ah. laaj xelam a ngi ci yow kooku moom ba ma geddee yàgg na yow jógal jógal jógal laajuma la yow yaay mënumaa dem waay waay jógal jógal jógal yaay kii naar la de xaaral ma woo police léegi jógal jógal jógal doo ko yàqal maa ngi dem yàgg bawul dara lu tëw xam daa yàggul. waa na na nañ ma rey jàppe koy jali muus. danaa la indil preuve man man maa rek danaa la indil preuve. allo taxawal taxawal. moo mun nga nettali trop bëgg maa yàqal sama teraanga tubaab bii ku ma ko nar a yàqal nar ma xañ yoonu Amérique ak France ma teg ci sama bakken bu sooba yàlla. Collé seggal nga ma sama kàlla. ba pare Collé nooy def nii. tuus bi laa war a xàcc. bàjjen nag yow nag léegi dafa mel ni dañaa naax. bala bi maa ngi fekk ni Pape Cheikh ak ak daaw ci rax yi ma jëndal pour ma ma liggéey ci ba pare wala ma ci gën a nga jël benn bale teg teg ko ci kaw yëre Pape boobu ni woon ci yëre ci moom koo mujjee fóot ndax mooy fóot gisuma ko. douche moom mi ngi si karo yi dama ko ci yow xam nga bale yi dafa baax. xanaa deux cent nga jëndee lan la. ay Kole lu ma dal nga laal di ko. ci la Kole lu ma def nga yàq ko. Ah. Kole ma yow ba fan. mbaa fàtte woo tegtal yi. déedéet fàttewuma ko. nu mu la ko waxee ndax xam nga dangaa sàggan tamit Adja ab sax. sàgganuma sax damaa xaw a jaxasoo rek. ma déedéet déedéet dalal dalal. nee na daal. bale bi la ma wax naa jënd bale bu bees. bale bu bees bu laal bu mu laal suuf. mu ne ma jënd ay carax. waaw takkante ko. waaw ma takkante ko. yeggale nee na su ma xaaree ba heure bi Pape Cheikh daan tëdd. Mhm. ma lal yére bi ci kaw lalam. jël dàll yi dëpp ci. waaw jël bale bi di bale di ko woo. alhamdulilah. kon de fi nga jëm ak man ndox am fa de. Papa Diagne lu ma def nag tey nag suba ba tey man defaguma benn dégât. ma dëgg yàlla kon lu ma lal nga laal di ko. ay kolle ci yàqal ma nga dëgg wóor naa ko de maa ngi leen informé woo ma de.